yéene delloowaat kàddu bi ak lu mbokk yi xam ngeen ni ci biir émission boobu si ngeen di amee mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi aljuma vendredi 3 septembre yëglikaay yi nga xam ne moom moo di sunu lamb les arènes lañ leen di bàyyi ngeen dem déglu li ñu indil ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 3 septembre 2021 dañu ñëw ak ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey moom ka fa xëy samp am ndëndam wala mu taxaw fa di wax wala boo di dëkke du kenn kudil ki nga xam ne moom moo di Gris 2 mi nga xam ne mooy rakki Gris Bordeaux que mu xëy sampal am ndënd nag du kenn kurul ka nga xam ne moo di Lac de numéro 2 bu écrit walo wala Lac de Guiers numéro 2 bu Guédiawaye waay 2 daal nee na ko boo bëggee dégg-dëgg sama avance boo ko lekkee attaqué la koñe la gañe la kese lay def tey itam daal nee na ko sama combat ak yow soo bëggee dégg-dëgg yàggaay ba du mat sax juróomi nit moom du ko bu yàggee ba yàgg du ko paase ndax foo ne ci biir géew bi danaa la fa fekk jàpp la xeex ak yow bëre ak yow daan la loolu la xëy tey di ko wax moom mi nga xam ne moo di Gris 2 yemu ca am na ñeneen ñoo xam ne tamit sampal na leen am ndënd muy ka nga xam ne nii moo di Yékini Senior Sa Thiès Garga Mbossé ne na ñoom ñee ñoom ñett ñooñu ak man pourquoi lan moo tax waruñu leen a mën a boole defal leen ab tournoi maanaam daal boole leen ci lu nga xam ne nii ab championnat lay doon ñu xool ku man ci seen biir Gris daal tey moo xëy ngar daajoo sunu làmb di fa dëkke wala boog di wax la mu bëgg loolu yëgli ka moo xëy tey andil ñu ko ka nga xam ne mook moom ñoo bokk na écrit muy Papa Sow te léegi mu yor écrit bu bees ca Parcelles Assainies moom i tamit daal soo bëggee dëgg-dëgg combat mag setta daal ba nga xam ne nag léegi jàpp nañ ko la cinq decembre daa mel ni ki nag Papa Sow fi mu nekk nii daal ca kaw la noyyee ndax combat boo xam ne yëglikaay bi nee na boo ko tënki ci ak yàggaay vingt-trois mois maanaam ñaar fukki weer ak ñett combat ba def na ko te bëre wuñ ko yu tegal sax ñetti fan moo tax papa itam daal mbir ma daa mel ni fi mu nekk nii daal ca kaw la ko jëlee lu mu gëmewul la waaye nag yemu ca nee na lu mënte xew daal nee na moom li mu jàpp te gëm ko mooy Siteu moom daan ko kese laa jàpp te itam loolu laa gis loolu mu waxi ka nga xam ne moo di Papa Sow beneen combat boo xam ne tamit diire na reporté nañ ko ñaari yoon muy gargal deux ak Mama Lamine mu mel ni boobu combat tamit boo bëggee dëgg-dëgg yëglikaay ba ñëwal nañu ci ak la nga xam ne moo ca am lépp ak i tamit date ba nga xam ne jàpp nañ ko fas ko yéenee tëgg muy ka nga xam ne moo di garga deux ak maama Lamine combat ba itam yëglikaay bi ne na le 5 décembre wala boog le 11 décembre lañ ko fas yéenee tëgg moom sunu làmb xëy tey dikkal ñu ci boobu combat ak yàggaayam waaye nag saison bi nga xam ne moom leen jëm ña ko fas yéenee ubbi moom moo de Marley école de Papa Kane ak nekku réll bu Lansar ñoom ña nga xam ne nag daal ñoom daal seen combat mooy ba ñu waroon a bëri ñu far aj saison ba daa mel ni nag baal ba ñoo ko nar ubbi keneen koo xam ne nii moom mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes mu di Balla Gaye numéro 2 ñu wan ñu ko mu dëkkoo dëppoo ak leket wala boobu laytan leket gu ndaw daal Balla nag yëglikaay bi ne daal am na juróom prise yoo xam ne ni daal moom lay pare préparé ngir lan ngir fas yéene daan ka nga xam ne moo di bomba di seenum combat tamit yëglikaay bi ne le vingt-huit novembre lan ko fas yéene bëree leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ca muy tafaatin tamit combat ba nga xam ne tamit le 19 décembre lan ka jàpp tafaa daal fi mu nekk nii la mu xëy xamle ko ci les arènes ne na pare moom laa def damaa jatu ni ab soccet laal ma naaw laalul ma naaw pare na ngir jàmmaarloo ak Boy Niang yemuñu ca leneen loo xam ne yëglikaay bi di Les Arènes topp na ko tey xëy defal ñu ko ci ay écrit muy ay bilan yoo xam ne daal am na bilan ya nag boo bëggee dégg-dégg daal écrit ba nga xam ne nii moom moo di Rock Énergie ak école de lutte Mor Fadam la ñu yëglikaay bi xëy tey toppal ñu ko bu fekkente ne école de lutte Mor Fadam la moom ba guy gi nekk trois victoires la ñu am deux défaites yëglikaay ba xool ko ci 60 pour cent de réussite Rock Énergie ba nga xam ne fa la roi des arènes di yeewoo muy Modou Lo trois victoires trois fet la nu am cinquante pour cent la ko yëglikaay bi dal di jàppe fa nga xam ne nii tamit moom moo di ci ba tey ci yëglikaay bi ca beref ya moom Lo moom nga xam nag moom mooy roi des arènes yëgli kaay ba mu ngi nu xëy xamal ne daal ànd na ak lion ya nga xam ne ñoo yëngu ca basket ba dem fa nga xam ne nii moom moo di ca Kigali maanaam di leen supporter loolu la def beneen bër boo xam ne bëre na ci làmb ñu gëj ko caa gis muy bàcc seeraas yëglikaay bi nag mu ngi nu xëy xamal ne daal bàcc boo bëggee dëgg-dëgg fi mu nekk nii daal ci wàllum sàmm ak yu mel ni kii noonu daal ca nekk di ca yëngutu wàllum élevage yëglikaay bi tamit xëy na dikkal ñu ci ka nga xam ne moo di Toubacouta mi nga xam ne ren wane na boppam boo bëggee dégg-dëgg huit drapeau daal yoo xam ne dajale na ko ak quatre million six cent cinq mille francs wala boo lu tegal daal moom dajale na ko moom Toubacouta muy xale boo xam ne daal ku jar a bàyyi xel la waaye li am ba des te nu war koo bàyyi xel daal mooy kii Kigali ga ca Rwanda boo bëggee dégg-dëgg demi-finale ba suba la Sénégal Côte d'Ivoire kon ñu ñaanal Lions yi yal nañu gañe ba mën a dem final ba indi coupe bi man nag olof a ko wax ku raj jëmale sa kanam mu dël dama ci am ab xarit muy capitaine ba muy yuusu Ndoye en tant que capitaine Youssou yal na nga nu andil coupe d'Afrique bi fii nga xam ne moo di Sénégal ndax gëj na fi depuis 1997. jërë ngeen jëf kon dégg ngeen sunu làmb les arènes liñ ñu koy indil démb nag ñu ngi jéglu parce que démb déggu ngeen yëglikaay yi. ci wàllum JDA bi ñu ngi ciy jéglu bu baax a baax nekkoon ci yeneen occupation ba mu mbir ma mujjul jàll mais ñu ngi ciy ballu àq bépp téléspectateur boo xam ne da nga koy xaar parce que xam nañ ne lii da koy xaar bis bu jot ci ñun waaye tey nag fi nu tëjee la ñuy ubbee ah muy suba Rwanda ga nga xam ne fa la équipe bi ne équipe nationale ñu ñaanal équipe nationale boobu nga xam ne Youssou Ndoye mooy seen capitaine seen entraîneur di Boniface Ndong ànd ak ñoom ngañ de Sagana Diop ak ñoom Matar Ndiaye ak leen wër yàlla nañu gagné coupe d'Afrique ba ca basket ba indil ñu ko loolu lañ leen di ñaanal yàlla na ko yàlla def barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke yowmal jumaa tey nag fi ñuy njëkke ci yëglikaay bi ngeen gis ko noonu moom muy sunu làmb xëtamu njëkk Gris moo fa nekk rakki Gris Bordeaux Gris 2 mi daan ab juuf bërki dem ba mu ko daanee nag daa mel ni fasagul yéen a jég écrit wàlla moom Gris ndax la tax mooy dafa xëy sampal Abdou Diouf ndënd wala boog Lac de Guiers 2 la sampal ndënd ne na nu bëre te bu nu bëre dinaa la attaqué koñe la gañe la te sama combat ak te foo ne ci géew bi ma jël si la lii la Gris 2 wax mu mel ni kon loolu liñ ciy jàngate mooy mbër mu ndaw mu ne la muy teg bëtam mooy que ko supérieur ngir bëgg a nekk un grand champion xam naa loolu moo tax mu koy dëkk parce que itam Lac de Guiers 2 ci VIP yi la bokk bëri naa ak mbër mu ne daan na mbër mu ne yaakaar naa tey Gris 2 bëre ak Lac dëggeer Guiers numéro avantage su Gris 2 dëgg la waaye combat bi itam la ma doon wax rek du dañ maanaam mooy li am tey Gris 2 ak ak ak Lac de bu doon taxaw combat ba xamoo lu koy yombalam Habib Lac de Guiers 2 nangu bu Lac de Guiers 2 nangu woon tey tey tey combat bi taxaw waaye ndax dina nangu foofu la mbir mi nekk nag parce que itam làmb moo tëddee noonu waaye daal moom wax na la mu bëgg moom Gris 2 pata sama gënal ñaam bi nag ku njiite sa avocat président Macky Sall waxoon na ne sa avocat baaxul te loolooy dëgg moom li mu bëgg la wax yemu ca am na yeneen bëgg-bëgg yu mu waxaat ndax lim na Garga Mbossé lim na Sa Thiès lim na Yékini Senior moom Gris ci biir ay waxam nee na nañ leen boole tournoi ñu bëree ba tey mu mel ni moom daal lu metti daal lay wër waaw ñooñu wax tamit ay grand champion lañ ndax Lac de euh, Yékini Junior bëri na ak Lac de Guiers Lac de Guiers daan ko Garga Mbossé bërki dem bu mujjee combat ak Moussa kii ku ne gis nañ fa ñu mujjee Sa Thiès tamit moom moom même moomu ci Moussa Ndoye la mujjee mu mel ni kon daal ñoom ñooñu lu mën a xew ah faw ñu laale laale mën ñàkk de waaw xaw ma kat ngeen di doon bëre wala dañ leen di ber ku nañu jox adversaire waaye laale daal du mën a ñàkk parce que nag tey boo boole woon tey Sa Thiès ak Yékini Senior di nga am lamb ju neex a neex a neex yaa ngi dégg defe naa itam Garga Mbossé tamit boo ko boole woon ak Sa dinga am lamb ju gën a neex te combat boobu defe naa presque demoon na ba taxaw far mujjee yàqu Gris 2 tamit sampal na leen dënd am nañ war nañ ko tamit ko mën a gestu ndax nag Abdou Diouf la daan te benn defet lamb gu ci làmb bu nu continuer mu mel ni de saison bi bi mu ubbee ki nga xam ne moom noyee na ca kaw muy Papa Sow gis ngeen ko noonu maanaam moom ah combat bi nga xam ne jàppaat nañ ko ci mois de décembre daal daa mel ni combat ba Papa Sow daal ah daa mel ni sant na ca de parce que nag combat boo xam ne la 5 décembre lañ ko war a bëree fi mu nekk nii kale nañ ko combat bi diiri na 23 mois yu tegal ñetti fan maanaam ñaari at presque parce que boo ne 23 mois presque 2 ans yi mat na muy loo xam ne yàgg na kon defe naa loolu tamit ah métti na trop ci mbër yi waaye métti na ci promoteur bi yal nañu yàlla def nag mu bañ a ñu bañ ko dàqaat bañ man ko bëree mel ni ki nag moom la mu bëgg moom wala la mu gis mooy daan Siteu loolu nag defe naa ne mooy li ko tax signé contrat bi muy combat boo xam ne bu nar a neex la combat Siteu Papa Sow lamb du ko dàq te maa leen ko wax te bis bu ñu ca yeggee di ngeen xam ne loolu may wax lu am la dana ñu bëre te jël ba dina rey bi ci des mooy ba tey ñaar ñoo xam ne ci keppaaru mbër yooyu la ñu ne seen combat tamit jàpp nañ ko muy Maama Lamine ku ko xam-xam si te ku xam si te xam xam Maama waaye Garga 2 tamit ba mu jógee fa nga xam ne moo di dóor dóoraat te ñoom Garga Mbossé ca keppaaru Papa Sow la dem te yaakaar naa mook Maama Lamine moom ñoo war a bëri tamit le 11 décembre loolu Vox Arena bii fii nu ne kër gi nu ñoo ko tëgg combat boobu tamit fi mu nekk nii ñu ngi koy xaar moobu tamit askanu làmb koy wër làmb jooju ñu naan kañ lay am ak dina am yàlla nag dogal na jàpp nañ dat ba yàlla nañ ko fekkee te tal ko ñu bëree ko ñooy ubbi baal ba nag mooy marle bu Papa Kane ak ki nga xam ne moom moo di nekko réll bu Lansar loolu tu tamit le premier octobre lay am bu buñ fa jógee les arènes la ñuy dem les arènes Balla Gaye 2 la ñu xëy tey andil ñu ko ak na mu war na muy def pour génn ci digganteem ak Bombardier juróomi mbir ya nga xam ne mu ngi koy préparé ay prise yëglikaay bi wan ñu ko noonu mu dëppoo benn laytan laytan nag mooy kii bu ndaw leket bu ndaw ndax leket mooy gu mag gi gi ñuy def cere mooy bu mag bi loolooy leket mais bu ndaw bi laytan lañ koy wax ci wolof pour mu leer parce que ñun ay africain lañu dañoo war di wax suñu langage yi ñi di ko dégg mais làkk tubaab yu bëri moom man Babacar moom soowuma ci daal boog pour mu leer wala boog sawaruma ci ah Habib mais nag lépp làng la rek waaye Balla daal loolu la dëppoo di waajal loolu nag luñ la waaye mën a wax comme bi kii da ngeen a bëri woon mu daan la c'est normal nga préparer sa bopp pour bu ngeen ci demaat nga xool nooy def ba daan ko te mu ngi ci liggéey bi boo jee ngi liggéey le 28 novembre yàlla nañ ci ko fekke te tal ko combat bu nar a neex tafaatin ña na pare na ñu nekk nii daal digganteem ak Boy la le 19 décembre chiffres yi tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom les arènes ci ay Euh, écrit école de Mor Fadam Rock Énergie ak nañu doxale école de Mor Fadam trois victoires deux défaites Rock Énergie trois victoires trois défaites mu mel ni kon ren boo xoolee écrit yi am na ci écrit yoo xam ne li ñu jot a bëri parce que li ko waral mooy combat yi ni mu mujjee woon taxaw ñu aj saison bi waaw mo lay wan ne te écrit yi da nga daan dégg ñu naan wax ay saison da daan tëj ñu naan wax ay trente combats ay nangami combats yàlla nañ dem nag ba amaat di am bilan yooyu ci ay nombre de combats yu bëri parce que mooy tax xale yi mën a compétir affaire yi mën a neex loolu mooy li nga xam ne nii moom moo ci am waaw euh, waaw dama koy tëje nag ak fa nga xam ne ni daal moom moo de ca beref ya ca les arènes Kigali Modou Lo nga fa waaye bàcc Seras mu ngi ca élevage ba bàcc champion bu mag ma koy nuyu borom ginnaaw raay le magicien de l'arène lañ ko doon wooye ndax na mu toll ci bind te mbër dàqu te bëre bàcc seeraas mën nga koob sut ko waaye bu ngeen jàkkaarloo di nga xam ne góor dëgg nga jàkkaarloo ci fit wa ci jom ja ci fulla ja ci fayda ja tey nag bu yëngutoo ci mbirum élevage loolu tamit loolu moo lay woon ne mbër da ngay am beneen métier rek loolu nag koy nuyu di ko jaar di nuyu waa Pikine yépp Moodu tamit loolu mu def rafet na lool sol dàllam dem ba Kigali supporter ji les lion am na solo tey itam yaakaar naa ña mu dem supporter ji ay sénégalais lañu parce que sax du ma wax amitié bi mu am ak ñoom parce que loolu beneen affaire la loolu moom ñoom la te digganteem ak Youssou Ndoye digganteem ak des des sagana loolu beneen affaire la mais Modou en tant que gale en tant que roi des arènes dem na ba téye flam flambe flambeau euh, euh, olympique bi ah jeux olympiques yi amul Londres Modou dem na téye flambeau ba defe naa loolu du ñëpp ko mën a am kon tey il c'est normal tamit bu Sénégal dee jongante mu sol dàllam dem supporté ji leen loolu rafet na trop yàlla ñu gañe kubba tey loolu moo fi dikkoon ci yëgle kaay di leen jox dig daje beneen jour incha allah rabbi wala beneen bés hmm? ak Equivox TV ak Babacar 100 pour cent lamb pur et dur nag lay doon vrai lamb laa leen di jox parce que moom incha allah rabbi fa su ma leen jox leen lu dul vrai lamb ci la may wax la ci li may wax la wala li may nang parce que li tax mooy lamb moom. dafa yàgg nekk passion bi ñu bëgg ko daan ko topp waaye tamit encore une fois di remercier ñi nga xam ne ñëpp ça fait sama anniversaire premier septembre bi defar nañ ay video ñi jox ma ay kado ah ma ciy jiital waa suur naa les arènes bind nañ ci man kera andil ma fii gâteau abu nur ma ko jiite ñoom ay safay ak ña fay liggéey ñëpp ñoom day ko ma faal su ma limee dinaa juum Lamine Seck tamit maa ngi koy nuyu ndax gis naa profilam la fane ne ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi may safoo fan si club Babacar ak 100 pour cent Babacar ak Equivox ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di nuyu tamit l'international yi ñoom Youssou Ndoye hmm? ñoom Branco Badio ñoom ñëpp def nañ ay vidéo pour man te ñu nga ba Kigali na ci basket bi bu leen neexoon ñu bañ ko def Lions yi nga xam ne ñooñu ci football bi tamit def nañ ay vidéo pour man gis naa Saliou Ciss gis naa Sadio maane di leen nuyu ñoom ñëpp tamit di leen ñaanal match ak Congo bi ñu jëm yàlla nañ ko gagné ba qualifié coupe du monde Qatar 2022 képp ku def vidéo ngir Babacar daal Babacar da lay remercier ah, sama doomu bàyyi dégg naa seen ay wax mais samay soxna tamit mention spéciale teneng aawo buru këram yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi lay ñaanal jàmm di ñaan njaboot gi barkeel waaye aram mi feeñal anniversaire bi tamit kenn du moom mooy sama deuxième femme yal na ko yàlla defal jàmm di nuyu ay waajuram yëpp rawatina papaam Assane Ndiaye képp ku def vidéo nag wala ah ñoom mën su joom a 2 su ma limee dinaa juum ba ci DC kër gi jox na ma kado sec ak ku mu mën a doon rek waaw même ñi joxe parce que euh, ñi ñaan ñaan ñaan dafa foor te yàlla na nga dund moo gën yàlla na nga dee abib waaw te ñi ma ñaanal bari nañ trop bu ma limee dinaa juum yàlla na ñëpp am jàmm ah di wax na anniversaire bi daal kontaan naa ci ni mu déroulé di nuyu waa groupe baax encore une fois Massamba Dieye sëñ Khadim Dia maa ngi koy béggee waaw ba tey ci remerciement yooyu tamit mbër yi tamit kenn demul ñu des que mbër yi maa ngi ñoom tamit vraiment relation bi rafet na trop trop trop ah nañ ma Saliou Khoule Zik FM tamit du ma ko fàtt sama doomu ndey boobu mbër yi tamit mention spéciale parce que gis naa ne xew bu ma am am naa fi ngénte ay mbër ah yónnee fa ay nit yónnee fa alal ba bawal gëm a dëkk may takk soxna ñu def loolu ñoom ñëpp ma gis ay vidéo ay Balla Gaye ay ñoom Modou Lo ñoom tout le monde tamit guy gi tamit yëkkatiwaat cadeau jox ma ko moom tamit maa ngi koy remercier ah démb ndeysaan jox na ma cadeau bu rafet a rafet muy benn ventilo boo xam ne bu seer la boo ko doon jëndte xaas bëri lay jar kon tamit loolu tamit dama koy wax parce que nit ki c'est Abdoulaye Mbacke noonu na giwel amul abib mais ku la defal lu baax nga wax ko te yu baax yi moo jar di wane waaw guy gi tamit ku dem ci Equivox di nga seetaan la mu wax ci diggante moo gett ak Wally Seck ak yeneen vidéo yoo xam ne mu ngi ñëwaat ci guy gi waaw di nuyu ñëpp di nuyu adversaire am ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg di nuyu layti mi ko yore waaye di nuyu tamit waa group groupe Futurs Médias parce que ñoo ma yombal pour ma mën a jot ci guy gi ndax bu neexoon maawa mu bañ mais moom suma xarit la nit ku baax la maa aussi maa ngi koy nuyu di nuyu groupe ba yépp ñoom malal junior Diagne parce que tam dañ fa am ay soppe ñoom ñi fa nekk ñëpp ñoom suñu papa Thierno Ndiaye suñu grand Lamine Samba ak Malick Thiandoum ñoom ñëpp ñu ngi groupe Futurs Médias maa ngi leen di béggee nas tamit doomu Woré Sarr maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm waaye di nuyu tamit xale yu jigéen rafet yi toog xam naa gisu ngeen leen mais ngi leen di gis gis naa ci nag xaw ma am nañu ay mari xaw ma am na ay célibataire waaye daal di leen jox dig daje rek suba incha allahu rabbi wala boog alterné boo boo gën a wóorlu abi